بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول نجلن دي نيو دي سنتات سبحانه وتعالى di ko ñaan jàppandal ak mu nangul ñu suñuy jëf baaxeewaat nañu ñu dajewaat suñu dars al aqida ñu àndoon ci ak al aqida ak tahawiya ñu nekkoon ci buntu hal yantafiu al amwaat bi amalil ahya ci bunt boobu lañu nekkoon moom la ñuy mottali mooy ndax jëfi kii dund dina jëriñ ku dee kii dund ndax ay jëfam dina jëriñ ku dee bu dee waaw yan jëf ak lu tax bu dee déet lu tax am na yuñ ci junjoon ca gannaaw tey nag ñuy li ci yaatal bu yemamaay ci xëtub ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn trois cent quatre vingt onze ci juróomeeli bind ci tekkaloo ci sunna ci ne dina jëriñ mbaa déet tegtaloo nañu ci alquranul karim ñu leeraloon tegtal yi ñu waxoon ne du jëriñe kon tegtal yooyu ne am yuñ ci jaaraat ngir wone ne nañu tegtaloo wonewul la ñu bëgg a kon mu ne ñu wa fi saxiix albuxaari kon hadis bi rot na ci saxiix buxaari muy hadis abdullahi ibnu abbas ci lan la bëgg joxoñ mooy jëfu kuy dund dina jëriñ ku faatu mu nekk ak nas boo xam ne sarax la sarax sarax bi nag lan la waaye jëmmug sarax la kon nit faatu na am na ku ko saraxal ndax dina ko jëriñ waaw kon ci loolu la bëgg a saxal donte am nañu wax déet kon hadis bi lan lañu nettali ci moom Aïcha radiyallahu anha من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم دام واي بنيو صلى الله عليه وسلم نكو يا رسول الله إن أمي افتلطت نفسها ولم توسي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت أنها قال naam boobu mooy bi ñu taxawee woon suñu bind mooy bi nga xam ne ci la ñu taxawoon ki yaayam faatu mu ñëw ci yonent bi ne yaayam faatu na waaye waxut jàpp na ne su waxoon dina dénkaane ne nañ ko saraxal ndax bu ma ko saraxalee dina ko jëriñ mu ne waaw foofu la ñu kon tey ci sahih buxaari niñ ko waxee ci abdullahi ibnu abbas ci nettilib saad ibnu ubbaada mu ne moom abdullahi ibnu abbas tuufiyat ummu wa huwa gaibun anha fa ata annabiya sal allah sallam fa qaala ya rasul allah inna ummi tuufiyat wa ana gaibun anha فهل ينفعها إن تصدقت قال نعم قال فإني أشهدك أن هائتي المخراف أو المخراف صدقة انها loolu mooy نتلي bi كي أبادة لنيو كي la ñëw ki عبد الله ابن عباس منتبه كنت سعد ابن عبادة مام سعد دا تكيو فكرا ينفاتنا قلو نبي صلى الله عليه وسلم سما يدي فاتنا ويبوب من نك في ndax buma ko saraxalee dina ko jëriñ gis nga nas moom day laaj ndax bu ma ko saraxalee dina ko jëriñ mu ne waaw mu ne waaw boo ko saraxalee waaw dina ko jëriñ mu ne ko kon nag yow yonent bi maa ngi seedeel ne sama tool bi maxraaf toolu tàndarma mu ne def naa ko sarax ngir sama yaay bi maanaam lu mu meññati nañ ko jox miskin yi sadaqatan jaariya kon loolu laaj la bu ñu tontu bu ànd ak jëf lan lañ ciy déggee mooy ku ñu saraxal gannaawam dina ko dina ko jëriñ kookoo mën a saraxal nag moo xam doomam la jege la keneen la lu mu mën a doon bu ñu ko saraxalee dina ko dina ko jëriñ mu ne buñ ko wooralee nag kon hadis boobu jaaroon na ci suñu ci suñu bind kon koor gi moom lan la mooy tiyaabo bi mbokk yi lan mooy koor naam naam lan mooy koor boole ko boole koog lan yéene xalaas al imsaaku ma an niya lii loolu ñu koy tudde léegi jëf mais ban xaraka la àndal bàyyi lekk bàyyi naan bas ñu ne gannaaw loolu man na yegg ca moom ndaxte am na tegtal yoo xam ne ñoo koy wone ci sahih bukhari sahih muslim riwaya aisha anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qaal man maata wa alayhi siyaamun saama anhu waliyu ku faatu bàyyi fi boru koor ka ko wuutu walla ka koy donn walla ka koy xamu mbokkool mu ne na ko ko kon bu ko ko wooralee day tegeeku walla du tegeeku kon tiyaa boobu yegg na gannaaw bu ko ko wooralee ñi bañ ñu ne déet li wér te sax mooy an nazar mooy euh, misër loo xam ne moom ci boppam moo dog woon ne da koy def te mënu koo def waaw loolu day riwaayam ñëw na misër waaye fii lan la yonent bi wax man alayhi asawm moom koor rek la wax moo xam dafa nësër moo xam kooru gàttanga la moo xam kooru farata la moo xam kooru kappaara la koor rek la wax te yooyu yëpp mun naa doon ay ay koor kon gannaaw wér na wuutu keneen ci jëf joo xam ne yéene la ak bañ a def dara kon loolu boo ko seetee kon jëfu keneen ki mu wuutalal keneen tiyaabu bi man naa yegg ci moom gannaaw bu ko wuutoo mu wàcc ko kon kay bu jëfee yónnee ko ko xanaa war naa mën a war naa mën a yegg ahlu sunnati wal jamaa ñoom loolu la ñu loolu la ñu jàpp waaye lenn ci boroom xam-xam yi bokk na ca ñooñu abu hanifa moom dafa wax ne déedéet bil itaami anil mayyiti duuna siyaami an moom mu ne mukk sarax rek mooy hadis bi ñu génn mooy sarax rek rek rek waaye leneen loo xam ne taxaw jaamu yàlla la loolu la wax ne al ibadat al badaniya mooy jaamu yoo xam ne yarama koy def mu ne yooyu bokkul kon dañuy wax ne kon koor bokkul dañuy wax ne kon julli bokkul dañuy wax ne kon jàng alquran bokkul te balaa parce que ajangi fi te aj leer na naññ ne bokk na te aj moom am na badaniya am na maaliya kon yooyu yëpp tegtal yi boo ko seetee settantal ko da nga gis ne la wér mooy waawaaw da koy jëriñu de day jëriñoo sarax ba mu ne beneen bi moom wusulu sawaabil hajj ki nga xam ne dañ koo ajal ngir mu yegg si ci moom mu ne loolu moom lu leer naññ la ci riwaaya abdullahi ibnu abbas أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تهج فلم تهج حتى ماتت أفأهج عنها قال هجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاديتي أو قاديته أقد الله فالله أحق بالوفاء كون حديث دي تم نص لا وايا موم دلو سي نك لي ني جوخو نون موي النظر موي نفر واي دينا نيو سي بنين كون بن جيجين بو بوك سي جوهينا mu ñëw ci yonente bi sala alai sallam ne ko sama yaay day dafa niféroon ne day aji waaya faatu na de te ajiwut ndaa faatu te jotu koo def ndax mën naa koo ajal ngir nifér bi mu defoon teggeeku ci moom yonente bi salaai sallam mu ne ajal ko demal ajal ko mu ne moom yonent bi di ko gën a leeralal mu ne ndax sa yaay bu fi bàyyi woon bor danga koy fay am déet kon jawaab bi mooy waaw bu fi bàyyi bor danga koy fay mu ne kon yàlla moo gën a yey ñu mataleel ko parce que sa yaay daa leb yàlla waaw dafa ne dinaa aji mu nisër jotu koo def kon ab bor la kon man nga ko ko man nga ko ko feyal fii kii bañ mu ñëw ni la dee def laa wax ne nazarat def laa wax ne defa waaye ki nga xam ne daa ñëw yonent bi laajul de mais yonent bee dégg mu ne la bayka an subruma kooku yonent bi rek moo ko dégg ku dee la kuy dund la mais dégg na rek ki aj ne diw mu ne ko ee eh, yow ndax aj nga mu ne ko noo ajaguma de mu ne ko labbayka an nafsika summa an sumruma kon bu ko aj naa lu mu koy wax bi kon bu fekkee dina ñu wuutu ci aj kuy kon boo wuutoo ko ko ko fekk yow aj nga kon day yeggu ci moom kon action yëpp yow yaa ko def kon ibada badaniya kon war naa mun a war naa mun a yegg ci moom kon ñëpp d'accord nañu ne ki yore bor faatu am ku gàddu bor bi bu ko fee dina wàcc ki faatu kon bu ko wàccee rek kon teggil na ko lan teggil na ko jafe-jafe ëllëg yawmal qiyaama kon nag yool bi yool bi day dem ci moom mu ne ku ko mën a def nag moo xam jege ñaale la moo xam moo xam leneen la mu ne luy tegtalam mu ne tegtalam mooy abi qataada abu qataada daa am ku faatu mu ngi yore bor ñaari dinaar abu qataada ne gàddu naa ko mu ne boram boobu ñaari diinaar yi gàddu naa ko mu ne ñu dem ba mu yàgg mu fay ko mu dem fay waa ji mu dem na yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko la ma gàddu woon mu ne waaw mu ne fay naa ko yonent bi ne al aan baradat alayhi jildatu mu ne léegi deram sedd na xalaas kon teggil na ko la teggilu ko kon jëriñ na ko ki fay kan la kuy dund feyal kan ku faatu yonent bi saxal ne deram sedd na kon xalaas kon jëfi kii dund dina jëriñ ku faatu loolu moom loolu moom lu sax la feeg jëf jamuy jëf sharia terewu ko feeg sariya terewul jëfam boobu dina dina yegg ci ci moom kon wax nañu ne koor am na tegtal wax nañu ne aj am na tegtal wax nañu ne fay bor am na tegtal yooyu yee yegg na ne ki dund moo ko defal ki faatu am na sax ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi di ko laaj mu ne ko yaayam daa faatu te da koo bugg a saraxal mu ne yonent bi ban sarax nga jàpp ne moo gën mu ne ko ndox xalaas gasal ko teen jeex na mu ne booboo gën ndox kon yonent bi confirmé na foofu waxu wala sarax mais ba gën waaw ñun nag lu tax ñuy dégg ñenn ñi di tere saraxal ñu ngi koy dégg wala dégg ñu ñu ngi koy dégg saraxal li tax ñu koy tere ñaari anam la ñaar dong benn bi mooy du génn ci alalu kifaatu lu dul bil wasiya lu dul de koo dénkaane woon te loolu muy dénkaane wadul ëpp un tiers bi kon alali kifaatu du ci génnee lu dul de koo dénkaane kon su ko dénkaane woon amoo droit saraxalee ko ci alalam ndaxte moomatu ko ñeneen ñoo ko moom mooy ndono yeeg yooyu kon nañu génne ci seen poste bu ñu buggee def sarax mooy benn bi tere benn bi benn bi beneen bi sadaqatul bidiya sarax bi lu sax la lu am la ni jëfin bi bidaa la lan mooy jëfin bi bidaa la tahdidul ayam bidaa la sarax ñetti fan du ñam ba génnee sarax ba moo moo aay de day ne ñetti fan yi bidaa la juróom-ñaari fan yi bidaa la euh, mois yi ah quarante jours yi bidaa la bu at bi dellusee bidaa la mais foo ko xelaatee mën nga koo def bu la neexee sax nga togg ba pare am koo yekkal yéele si sarax xalaas nga am problème nga am koo yekkal yéele si sarax nga toog robinet coupé ndox amul yàlla def yow nga amoon réservoir wala nga amoon leneen nga leneen kaay neen root nga yéele ci sarax xalaas hadi sadaqatu jaariya waaye nag tey mooy ñetti fan bi tey mooy juróom-ñaari fan yi te mooy ñeen fukki guddi yi at bi dellu si na loolu mooy li ñu tere ñu dellu siwaat ci ahadis yi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon waa kër ga da leen tere woon mu ne bu ñu bu ñu togg parce que ñoom daa am lu leen suxal kon ñan ñooy togg mooy dëkkandoo mooy ku togg rek na yekk yóbbu foofu bu fekkee léegi jamono jàppandalu ko mais ku nekk na lamb poosam ñu def ko mu jeex waa kër ga nag su ñu xelaatee nangam rek sarax la jarul dajale ay nit jarul leneen sarax lay doon kon jëmmug sarax bi du loolu la tere mooy nañuy léeg-léeg ñu tere julli mais du jëmmug julli bi de mais waxtu wa wala béréb ba wala anam ba ñu dal di ko tere ñu ne non mais du jëmm julli bi la ñu tere déedéet mais changement yi nga xam ne def nañ ko ci yooyu la ñuy loolu la tere ne béréb sàngam ku ci julli mais loolu dañ koy tere parce que béréb boo xam ne du jàkka du lenn du dara loolu dañ koy tere ndax julli la ñu tere laa bu ko neexoon dem ci beneen béréb bu ko neex dal di fa julli moo xam rakka yu ko neex amul benn benn problème wala nga wut waxtu wu bokkul ak waxtu yi yàlla wax bu dee yow sa jëmm julli lu dul heure naafila suñu tere bu dul loolu julli waaye nga dal di ko sos nag ay nit dina ci fekk ah naqul laka hadi bid'a mais julli bi julli bi du bid'a yu sew sew yooyu nag ñu bari dañ ko dul dañ ko dul settantal kon saraxe ci ku dee dagan na te jortu nañu ne yiw bi dina yegg ci moom kon jaaroon nañu ci yenn tegtal ñu ne dara du ko jëriñ kon foog ñu dellu si waat ci tegtal seet ñooñu ni ñu tegtaloo aaya yi ndax niñ ko déggee noonu la am déet ndaxte déggin ba mën naa des te bu ñu waxee nga jàpp loona la mooy aaya bi borom bi subhanahu wa taala wax wa an laysa lil insani ma nit ki amut lu dul jëfam du la yàlla wax nit ki amut lu dul jëfam ñu ne kon yow boo ko jëfalee du ko jëriñ ndax aaya bi loolu la wax boo xoolee ci kaw da ngay ne waaw waaw nit ki moom jëfam rek a koy jëriñ mais yàlla waxul jëriñ de lan la wax amut bi mooy lan mooy moomut nit ki faatu ki koy saraxel di dund ndax ki faatu moomoom jëf ji déedéet kan moo ko moom ki ko jëf moo ko moom waaye kooku jëf na ko ba pare nag mu ne diw laa ko yéeneen aaya bi tréwul loolu aaya bi dafa ne yow moomuloo da nga am ci sañ-sañ di ko joxe wala di def leneen déedéet li nga jëf nag loolu nga am sañ-sañ loolu la aaya nga am sañ-sañ li nga moom nga moom mu ngi mel ni sa alal sa alal rek nga moom waaye alalu keneen moom waaw ndax alalu keneen mënu laa jëriñ yow ah? maanaam alalu keneen ba muy dund yow sa alal nga moom mais moom am na alalam mu jël ko may la dina la jëriñ wala dina jëriñ nangu nañ ko wala nanguwuñu ko mais nafsu kii daa may ku dund kale mu may ku dee mais léegi la ñu ne noonu jëf ji moomoo ko ba di ko mayee d'accord mais lan mu indi du'a ah mooy ñaan mais jëf itam day day day dox doxu ñaan gannaaw am nga sañ-sañ ñaanal ko am nga sañ-sañ yëggulul ko kon man ngaa jëf-jëf xam ne yàlla bëgg na ko nga ne ko yow yàlla lii ko diw kon kon ñaan la ñaan tiyaabo bii joxal ma ko diw mais yow xamoo am na tiyaabo wala amul tiyaabo mais yow certitude da jàpp ne am na tiyaabo te am na tiyaabo feeg lu koy yàq amut am na tiyaabo feeg lu koy yàq amut kon da ngaa ñaan yàlla te yàlla ak mbaaxam dana la fay jox ko ci dara kon loolu tegtal bu leer la ne de koy dal di jëriñ kon borom bi subhanahu wa taala waxul fii mukk ne du jëriñu lu dul ci jëfam dafa wax ne moomut lu dul jëfam léeg-léeg nag déggin bi dina xaw a dina xaw a jafe ñu ne ngir dégg ko fii bu la neexee sax nga ne waaw moom moom sax jëfam la mooy tontu bu njëkk bi moom sax jëfam la ñu ne naka la nekkee jëfam mu ne benn al insaanu bi saayihi wa husni isratihi iktasaba al asdiqa wa awlada al awlaad ila mu ne nit ki ci comportement nit ki ci mbaaxam ci ay action la amee ay xarit ci la amee ay doom ci la takkee ay soxna ci la jëfee jëf ju baax buy tax nit ñi bëgg ko sopp ko mu faatu rek ñu taxaw di ko ñaanal kon seen jëf ji moom bokk na ci ndaxte am na comportement bu mu doon am euh, waxuma ne duñ ko ñaanal de mais boo moytul ñaan bi du àgg xol yi de waxuma ne duñ ko ñaanal mais léegi-léeg ñaan bi du àgg xol yi de fekkee ku bon la ku yées la ku tiiñal nit ñi la kuy indi musiba la buñ nee faatu na dañuy ne ah noppaleku nañ noppaleku nañ léeg-léeg ñi nga xam ne dañuy ñaan ñu ne yàlla na ko yàlla fay jëfam du ñaan ndax ñaan boobu la soxla waaw parce foo dégg yàlla na ko yàlla fay jëfam ah! léeg-léeg day am na lu ci taq kon loolu moo tax nit ki mu joxoñ yàlla lii mu ne kon nit ci boppam ña koy ñaanal mën naa bokk ak moom jëf ji ndax ak taxawaay bu mu wone la woon ba ñu taxaw taxawaay boobu ñaareel bi mooy yàlla terewu ko yàlla waxul ne du ko jëriñoo mooy aaya bi ñu génnoon léegi boroom bi dajale ñaar ñaar yooyu mooy ñan ci mbaaxaayu borom bi ak maandoom loolu la yàlla doon wax an laa taziru wa an laysa lil insani illa ma saa yàlla lam fa doon mooy mooy maandu mu ne xanaa yëgoo ne keneen duñ ko jàppee keneen fuñ ko wax rek boo seetee la ñuy joxoñ du mbaaxu ñooña lan lañuy ñuy joxoñ seen mbon mais du seen mbaax de déedéet mu ne nit ki lu mu mun a mel lu mu mun a def lu mun a dox seen diggante na xam moom bàkkaaram moom lañ koy laaj mu sof ci nag ne ndaxte nit ki jëfam la moom jëfam la moom kon loolu borom bi subhanahu wa taala da ciy wone ak maandoom waaye day wone ak yërmandeem waaye dàqul ne jëf ji mën naa jëriñe am déet boroom xam-xam yi jàpp ne mën naa jëriñi kon mooy aaya bu benn ci aaya yi loolu la ñu tegtaloo kon ñu ne tegtal boobu des na beneen bi ñu ne borom bi subhanahu wa taala moo ne ba muy wax bakkan lahaa ma kasabat wa alayha mak tasabat mu ne bakkan moom lépp lu mu jëf ci lu baax rek mooma Lou mou jef bon. bon ki lou bono? Mou mou. Waw. Lè lou wak jidèk boulè di. Lou mou jefren mou mou. Mè lou mou emandou di mou wak lè anlata zirou? Wak zirou, zirou, zirou. Boutè fè lou ba, waw. Mou kon mou. Jè. Mounè wè boutè fè lou bonit? Chikò. Mè koko wè nou jef ou kenen, ki mou jef, nyan yalla. Mè koti set. Jè te undara. Yalla dey fè belifi. ne boo jëfee lu baax yawa da ngay dajeeg moom boo jëfee safaan ba li tam noonu lu baax li yaa ko moom kon gannaaw yaa ko moom du deewagoo mais man nga ci yéene keneen parce que yaa ko moom deewagoo mu mel ni sa alal bi nga yore deewagoo man nga ciy comp jox ci nit kooku nga ko doon jox na dee na mais man nga ko koo yónnee mooy nga def yiw nga yéene ko ko moo xam sarax la moo xam ñam la moo xam ndox la moo xam lu ñu mun a jëriñoo rek nit ki mën na koo mën na koo yéene ku génn àdduna mu ne borom bi wax na ne wala tujzawna illa ma kuntum taamaluun mu ne yàlla mu ne duñ leen fay mukk mukk lu dul la ngeen jëf mais yàlla ñëpp la doon waxe am de ñëpp la doon waxe ñëpp duñ leen fay mukk lu dul seen jëf aaya bi fu mu jógee noonu rek da gis ne safaan bee tax muy wax mais bu bu dee mbaax bi mais dañ lay fay loo jëfa mbaax boo jëfee benn luñ lay fay fukk boo yéenee def lu baax jotoo koo def dañ lay dañ lay fay boo yéenee def lu bon nga far fomm dañ lay ah kon nag borom bi subhanahu wa taala li mu wax lu yaatu la de borom bi lim lay wax fii mu ne bàkkaaru keneen duñ ko dumaa keneen mais nit ki dinañ ko fay lu ëpp la mu def de ci yërmande borom bi kon aaya bi kon du tegtal ne nit ki faatu na yow boo jëfee du yegg ci moom déedéet du tegtal kon loolu itam benn tontu la boo xam ne mooy tontu anam yooyu te loolu dafa bari ci alquranul karim boroom bi dàq na ñu mbugalee nit ci jëfub nit loolu la dal di dàq waaye jëfub keneen manees na yi beneen aaya bi ñu tegtaloo ñoom ñu ne bobu suñu tegtal la jëfu keneen du jëriñ keneen mu ne yàlla moo wax ne fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wala tujzawna illa ma kuntum taamaluun ne waaw mais loolu yàlla di wax kañ la yawmal qiyaama fal yawma mu ne tey tey duñu tooñ bakkan dara du ñu tooñ bakkan bi dara bakkan bi na wax kon fii def na ko benn laa tuzlamu nafsun shay'an kon gannaaw nakira siyaaqu nafi umum bépp bakkan borom bi nag ci biir mu dellu si boole ci ñépp wala tujzawna illa ma kuntum taamaluun du ñu leen fay mukk lu dul la jëfu ñu ne waaw waajooju keneen ki jëf gannaawam mun naa nekkum doomam kon loolu hadis jagleel na ko mun naa nekk xaritam kon mbaaxaayam moo tax ñu xaritoo hakaza kon mbaaxaayam boobu moo tax bokk na ci lan ci jëf ji parce benn sabab la ci sababu jëf bi kon aaya bi itam tegtalulu mukk nag ne ki faatu jëfu kii dund du ko jëriñ ndaxte aaya bi yowmal qiyaama lay dal di wax kon dàqul njëriñu jëf ji dàqu ko mais lu mu jëf nag boppam loolu moom dal dina dal leer mu ne ñoom itam tegtaloo nañ ci hadis hadis ñëwoon na ci ñun mooy lan ida maata ibnu adama inqataa amalu inqataa amalu illa min salaat mu ne doomu aadama bu faatoo rek jëfam taxaw na bu faatoo jëfam taxaw na ndax suñu weerante foofu la déedéet moom jëfam taxaw na xalas moom moom jëfam jeex na mais jëfam bu taxaw wonewul ne jëfu keneen du ko jëriñ waxul na laa yantafi dafa ne inqata amalu jëf ja taxaw na lu dul ñetti jëf waaw ñetti jëf yooyu ndax moom moo ko jëf la mais sabab la moo taxoon tontu bale mu waxoon la sabab mais moom bokk na mais jëfu ko mais boo seetee ab taxawaayam moo tax jëf ya dal di am waladun saalih ah benn walad mooy baayam ndax bépp walad la déedéet saalih parce que da koo yar leeralal ko pas-pas defar jikkoom won ko diine mu nekk saalih participé na wala participé mais jëf ji walad saalih boobu di jëf jëfam la wala jëfu keneen la jëfu keneen la jëriñ na ko wala jëriñu ko mais jëriñ na ko mais moom jëfam taxaw na jëfu keneen la moo tax mu ne wala dun saalihun yadu uula mooy doom bu baax bu koy bu koy ñaanal jaar jaariya ak sarax boo xam ne day wéy tool la defoon mu ne tool bi def naa ko sarax mais keroog ba mu faatoo moom inqata amalu léegi keroog ba mu faatoo tool bi kenn rooseetu ko kenn béyatu ko kenn sàmmatu ko kenn aaratu ko dina fa ne mais du fa ne boo gisee mu nekk jaariya daa am ku ñëw gannaawam continuer jëf waaye moom moo ko moo ko sampoon mais moom moom action jeex na mais la mu sampoon nag am na ku wéere action boobu kon borom bi terewul loolu yonentu sallallahu ba muy wax waxuloon ne jëfam lépp maanaa moom action taxaw na waaye am na jëfu keneen ku mun a yëngatu mu dal di yegg ci moom ilmun yuntafa'u bi xam-xam bu ñuy jëri ñoo bindoon na téere mais moom jëfam pare na ba mu bindee téere bi mais keneen mooy jël téere bi def effort jàng xam wala jàngale ko effort boobu muy wax ci moom ci li mu defoon mais effort waajooju day dem day dem ci moom effort waajooju day yegg ci ci moom te moom dundatul kon ñett yooyu la yonent bi jinjoon am ñu ne yooyu dong la am ñu ne déedéet loolu misaal la mais man naa man naa yóbbaale leneen lu bokkul ak loolu mais li yonent bi wax ne taxaw na mooy jëfam moom mais tiyaabooy jëf ji moom mun naa mun naa yegg ci moom loolu mooy mooy li mu ne waaya ñuy teqale al ibadat al maliya wal ibadat al badaniya ñiy teqale jëfuk alal ak jëfuk yaram am nañu ne jëfuk alal bi day yég waaye jëfuk yaram bi du yegg ndaxte ñu ne ba muy dund munu ko ci wuutu kon nun ko ci wuutee ba mu amuloo sañ-sañ ne nit toogal ma jullil la mën na ne toogal ma wooral la mën na ne abadan kon loolu mënul ne ah benn soxna de Moustapha wax ne dafa leboon koor commencé ko sonn mu ne ma wuu oh, man de maa sonn waaye sama borom kër mu ne ma bàyyi mu wooral ndax man na ne <laughs> mu dul ne <laughs> kon loolu la ba muy dund am na loo xam ne munoo ko ci wuutu mais am na loo ko mun a wuutu ci jaamu yàlla lu mel ni xaj mën nga ko ci wutu jaamu yàlla la man nga ko ci wutu mais am na yoo xam ne ñu o déedéet mënoo ko ci wutu julli julli kenn mënu ci utu kenn pas-pas kenn mënu cee wutu kenn ndaxte ku nekk rek mbiru boppam la ñu ne mënoo ko cee wuutu nag nu muy faatoo ba pare ñu ne nga wuutu ko ci donc côté boobu la ñuy ñëwee moom ba muy dund munoo ko ci wuutu mais ba mu faatoo ñu ne man nga ko ci wuutu ñu ne waaw benn am na tegtal ci sariya kon ñu dañuy wax ne waaw ñaar yërmande borom bi subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala moo ñu ko joxoñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko joxoñal ndax ma wooral ko mu ne waaw loolu jëf la ndax ma ajal ko mu ne waaw loolu itam jëf la ndax ma saraxel ko mu ne waaw loolu alal la kon nooy nangoo bii weddi bale dangay bokk rek boole gën yëpp rek nangu ne yërmande borom bi subhaanahu wa taala la yërmande bi mu ne boo seetee yonent bi sallallahu alayhi wa na ko ci tabaski riwaaye ñëw nañu ne ñaari ñaari gàtt la rey benn bi mu ne bii day Muhammad la ak njabootam beneen bi mu ne an ummati kon wuutu na leen wuutu ci loolu te boobu du ibada maaliya baxta déedéet ibada maaliya mu ngi ci sopp waaye yéene bi te jëmmug mbir ma la jëmmug mbir rek ibada la mooy jaamu borom bi subhanahu wa mooy tuur deret bi donte nag alal la parce que alal mooy doon gàtt dëgg yooyu kon mu ne mbir yu mel noonu dafa bari kon lu ñuy mun a wax rek mooy dagan na mu ne liggéey ngeen di wax ne nit mënul wuutu nit jaamu yàlla mu ne bu leen ko boyal neel am na jaamu yàlla yoo xam ne kenn mënu cee wuutu kenn mu ne lan moo indi fardu kifaaya lan moo ko indi mooy ñii wuutu ñële fardu kifaaya misaalam mooy julle néew bu ñu ko julleewul rek ñëpp am nañ bàkkaar mais bu amee ñaari nit ñetti nit ñu jóg taxaw jullee ko rek wàcc nañ ñëpp wuutu nañ leen wala wuutuwuñu leen li ñu leen wuutu jaamu yàlla la wala du jaamu yàlla jaamu yàlla alal la wala jaamu yàlla yaram la yaram day jóg taxaw kon fardu kifaaya mu ngi noonu ci salaatul salaatul janaza kon yooyu yëpp dañuy gis ne boo koy wax boo koy tere il faut nga def détail boo deful détail rek day doon euh, lu jafe beneen bi mooy alqira'a ndax dina dagan jàng buñ ne jàng luñ ci jublu alquranul karim ndax dina dagan ci faatu ñu jàngal ko alquranul karim am déet am ñu ne laa yajus abadan ñi ne laa yajus ci lan lañu wax al ijtimaau lil qiraa mooy daje def ko mbooloo ñu ne daganut mais yow nga toog ubbi sa kaamil jàng ba fu la pare nga pare ñaanal diw ne yéene naa ko ko kenn terewu la ko am ñu ne tere nañu ko ca armeel ya am ñu ne dagan na ca armeel ya inda dafni dagan na ca armeel ya ñu jàng ko inda dafni moment bi ñuy suul mo xam ikhlas la mo xam yasin la ndax dañ ko boyal hakaza dede am nañu ko tere ñu ne lutax tax ñu ne parce que qiraatu alqurani tushbihu alsolaa walsolaatu manhiyatun anha fi almaqadir ñu ne jàng alquran boobu dafay xaw a niru julli te julli boobu dañ koo tere ci bàmmeel ñeneen ne déedéet ndaxte Abdullah ibnu Umar awsa mu ne moom dafa dénkaane woon mu ne moom bu faatoo ñu koy suul nañ ko jàngal aaya yi njëkk ci suratul baqara ak aaya yi mujj ci suratul baqara mu ne fekkoon ne daganul laa yuusi ala zalik du ko def fekkoon ne daganul laa yuusi ala zalik ñu jàpp daganna nag dagan na ñi ko tere ñu ne waaw d' accord dagan na waaye lu tax yonente bi salaa sallam ko fi jàngal rek ñetti baat inda dafni mu jàngal la julleel ko mu ñaanu niw kon leneen loo ca sab xelaatu boppa moo tax ñi dal di ko tere li ñu joortu nag mooy aha am na ci yu am njëriñ lu muy war a yegg ci moom bu fekkee ne sart ya daje na te mucc na ayib hakaza sart ya daje na te mucc na ayib bokk na ci sart yi boroom xam-xam yi tere mooy tahdid mooy nga ne nangam dañu jàng xulu Allah fukk ñaar parce que boo tënkee rek waratul romb waratul te imam safa yi mu ne képp ku tënk rek tëral la sariya moo tax ñeneen di ko tere au lieu ñu leeral tënk bi mais ñoom dañu far rek tere yaasin noonu jàng leen ñeen fukki rek ba foo mun a rek ba foo mais bul nekk fa di tënk wala ay junni ci bismillahi rahmaani rahim yaa axi allahumma agfir lahu warhamhu wa sabbit mantiqahu inda almasala ndax mënati nga indi ñaan bu raw boobu ah ñu ne donc nag dugg ca armel ya jàng alquran ñenn ñu ne waaw parce que ab ñaan la ñeneen ñu ne déedéet tax mu ne rubbama yataazawna bi qiraatika yiga xam ne sakal ngi Yasmaun Al kira. alqiraa mu ne dugg fa jàng ndax yéwén na ñu ne lu tax ah parce que jàng bi ngay jàng est ce que du am ñu muy lor jàng bi ngay jàng mu ne est ce que du am ñu muy lor ne bon rek la ñu nekkoon فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم اسك أرنز نداي ولا نلوبو أرنز ولن كل كيان واخ لي ينتي بي واخ رنا نوبلو لا لا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أهلم جدك نسأل الله لنا ولكم العافية أها بكم لكن لا يمشي يا أخي يمشي لورك nga xam ne amul lenn loo xam ne mun naa mel naa mun naa mel nii parce que alquran bi ngay jàng yow ci sa bopp xam nga ne jaar nga ci aaya yoo xam ne bëgguloo mukk yàlla àtte ci sa waay yow xam nga loolu bëgguloo mukk yàlla àtte ci sa waay kon moo tax insister ci yenn yi du ko jar waaye weddi yenn yi xaabaabalit du ko jar waaye wax ju bari ji lan moo ko indi mooy ñi xamut ñoo noppiwul ñoo bàyyiwul loolu indi problème bi mais fekkoon ne def nañ li yàlla wax fasalu ahla zikr ñu kon problème bi am ñu kon dañ laa wax li gën li gën ñëpp xam nañu ko mooy li yonent bi defoon looloo gën amul kenn ku weerante ci loolu li yonent bi defoon moo gën te yomb te gaaw allahumma agfir lahum warhamhum wa sabbit mantiqahu indal mas'ala loolu mooy lan mooy yàlla ñu ngi lay ñaan nang ko yërëm nang ko jéggal nang ko may ndëgër laay mu tontu lu wér ne ñett yi bu amee loo soxlaati ndax soxlaati nga dara yaa koy soxlatoo dara nekk woo di jàng yaasin yaasin dafa gudd de mais jàngal yooyu rek nga nga noppalu amul beneen problème mu dal di yomb ñu gars def li ñuy def dem seen yoon am njort gu rafet nag ci borom bi subhanahu wa taala kon yii yëpp yenn la yoo xam ne boroom xam-xam yi wute nañu ci te bu ñu ko waxee nii képp ku ko dégg dootu ko jaral mu nekk di weerante yow jàng alquran boobu yow convaincre la mais bàyyi ko defal li wax nga dem sa yoon fekkee moom gis na moom fokk day jàng alquran moom bàyyi ko mu jàng alquran voilà ban problème ma ci bi voilà loolu amul benn jafe-jafe mais nag ñun du ñu yem ci loolu am na koo xam ne day jàng alquran la tax muy jàng alquran mosul nekk ne day ñaanal néew bi daa am ñu mu gis rek foog mu naqaral leen <laughs> yaa axi loolu loolu fen mu ngi mel ni ba sunna bi di tàmbalee fii da nga gis koo xam ne day dem ci jàkka tappul awwal moom lan moo ko fa yóbbu bu ne wala daalin na amin dama xool ku ci man dara loolu loo ciy am parce que heure boobu dañ koy tere de fii dañ koy wax amin dóor la ñi nga xam ne nag yëg nañu macha allah ñoom anam dañuy taxaw ñu ne amin ba mu neex leen mais kooku julleen ba ndax am na ci dara jigéen laa yaa axi am na koo xam ne day taxaw génne ay ñaan dara taxu ko lu dul am nañu fi ne foog ma xoñoñal leen yaa axi nekkuñu ci bérébu xoñoñal mais ñooñu ngay xoñoñal amaan na am na ci ñoom koo xam ne xaritu yàlla la lu nga bàyyi rek mu ñaan yàlla bokk nangu ñaan yi parce que rubba as asa axbara law qasama ala allahi la mais da nga gis koo xam ne ku koo xeeb la yére yi yemamaay bokk baa ngi jëxam mu ngi pënd mais mu ne bu gëñoon ne yàlla nii rek yàlla ne ko jox na defal naa la nii nga ñu xàmmeewoo leen ci nit yaaxi bàyyi rek yow sa néew bii li nga bëgg mooy na ko yàlla jéggal rek buñ ne allahumma axfir lahu warhamhu wa sabbit mantiqahu inda al masala waxal loolu nga jortu ne loolu mën naa doon njéggalam keneen ne damay jàng qul huwa allah bàyyil mu jàng qul huwa allah moo xam ndax dina nekk yool bu yegg am déet parce que mbir mi itam mbiru mbiru yéene la mbiru yéene la kon yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel mais li ëpp li ñuy bàyyi xel mooy nañu tënku fi ñu yonent bi tënk ndax li tax nga bàyyi ko jàngi yaasin li tax nga bàyyi ko jàngi kaamil xanaa li yonent bi def daf laa doyut wala da nga koo xeet loolu question la boo xam ne toujours war nañ ko répondre li yonent bi doyloo woon defal ko ay saxaabaam yow def laa doy, wala yow da nga koo xeet loolu dañ ci bàyyi xel de te loolu def laa war doy waro koo xeet ndaxte ngaa war a jàpp ne lépp loo fi indi li yonent bi indi moo ko gën boo jàppee nag yow li nga indi ak li yonent bi indi xëj na moo tolloo wala li sa waay indi xëj na moo tolloo loolu mettre na en cause sa pas-pas yow kon sa pas-pas yow seetaat ko ndaxte Moustapha sallallahu alayhi wa sallam duñ ko méngale kenn nag lenn kon borom bi subhanahu wa taala ñaan yàlla ñu dëppale ak sawaab mu may ñu ñu jaar ci yoonu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu nëbbal ñu suñuy sikk te jéggal ñu ko wa ma zalika ala allah bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullah naam la hawla wa aleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah <coughs> mu ne ndax dépasse sarax la dépasse bi nit ki di yoree njabootam fay courant baag fay ndox baag joxe dépense baag paj baag yére yaag mu ne ndax am na ci waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne benn waay bu xëy am ñaan ñeenti diinaar ñeenti diinaar mu ne benn diinaar bi mu jox ko jirim beneen bi mu jox ko faqiir beneen bi mu jox ko asiir mu ne bu des benn mu téye ko daal yàlla ne bii moom sama soxna laa koy joxi mu dem jox ko soxnaam yeneen timbi ne ba gënal yàlla ba ca ëpp yool mooy bi mu jox soxnaam kon waaw waaw nit ki dépense bi muy dépense yiw la moo tax loolu da koy motiver moo tax du mer bañ a joxe dépense parce que loolu it am na ñoo xam ne noonu lañu ñu mel bu meree rek bañ a joxe dépense wala mu joxee ko joxinu yàq sarax joxinu lan yàq sarax lan mooy yàq sarax bil man ni wala ndamu ci kaw woon ko ne bu du doon man ak nangam xam nga ne yow bu ma la foo jëm ak aga mooy dal di ko xas sarax sa yàqu na bu dépense bi di génnee noonu yàqu na wala mu mer jël dépense sànni ko keroog it du ci am yool yàqu na wala muy joxe dépense bi gëdd ko kon loolu itam yàqu na kon na xam ne lii muy joxe yàllaa tax te yàllaa ko ko jox dina ko joxe ni mu gën a rafete bal ba mu meree sax laa yokk dépense ba nga xamee ne yëg na ne moom dafa mer keroog day joxe lu ëpp lam doon joxe xalaas loolu nekk buntu boo xam ne lu leer lay doon te borom bi subhaanahu wa da ko koy feeñ ñaareel bi mooy ki tarde julli imaam bi am lu mu bàyyi moom te loolu mu bàyyi laaj na mu sujuut balaa muy sëlmal wala mu sujuut bu sëlmalee ba pare kon maamuum bi nu muy def lépp loo xam ne imaam da koy def balaa muy sëlmal maamuum bi da ko ciy topp kon bu fekkee ne sujuut ba mu doon sujuut balaa muy sëlmal la maamuum bi ànd naa ngoo sujuut na ko balaa muy sëlmal jeex na dootul sujuudaat leneen yi fekkee ne sujuut bi day sëlmal ba pare soog koo jeex ba mu ne asalaamaaleykum la libéré maamum bi kooku day dal di jom julli ba julleem jeex ba mu sëlmal mu soog a la imaam sujuudoon def ko nam ko defee woon mooy ba'da salaam naam waaleykum salaam mu ne kii génn àdduna nit ñi ñëw di jaxal sababu génnuk àddunaam moo tax ñuy jaxal waaye moomu ko ñuy dund ñoo ko moom loolu ñoom buñ ko dajalee seen mbira ñu ne dañ ko ci saraxalee moom du alalam bi kon ñoom ñi dund ñooma parce dina dagan ku ñu ci jox mu téye lañ ko jox amul benn charte buy wone ne lañuy jaxal fokk ñépp dal di ko dajale ñu def nangam la loolu teengal la rek kon ah waaw waaw ñoom bu ñu gisee ne lii daal gannaaw ñëw na dañ ko koy saraxeel waaw bu ñu saraxee yéene ko ci amul problème sarax bi dañ koy joxe xaalisam sarax bi dañ koy fajee aaju nit sarax bi dañ koy jëndee ji ay ordonnance sarax bi sarax bi sarax bi dañ koy def ñam ñu lekk ko naam lu ci def rek dagan na bi iznillah waaye du alali ki dee de ñi dund la naam naam waaleykum salaam wa dañoo continué wàllu bi ñu fekkee dafa daan boole sax jënd ak jigéen ñi ñu tax da koy bàyyi wala ñu nekk kon question bi buñ ko déggee mooy ndax kuy tukki mën naa naafila parce que mooy mën naa naafila wàññi ni ko yonent bi sa alayhi wa sallam waxee sarax la boo xam ne borom bi subhanahu moo leen ko sarax jël leen ko kon dañuy jàpp ne kuy tukki wàññi mooy li gën bu fekkee ne ci boppam la bu fekkee nag day julleeg ñeneen ñoo xam ne ñoo ko conditionné kon day matale kon ñoom kii tukki ajjuma wàcc na ko kii tukki ajjuma wàcc na ko léegi nag mu def naafila waaw bu amee occasion am yaatuwaay bëgg naafila waaw man naa naafila de naafila bi nag moo xam naafila koor la moo xam naafila julli la lu mu ci def rek terewuñu ko man naa ne naam bismillah ah mooy li mooy naafila koor naafila julli dégguma de ci ah. samitu kifaatu waaw maana kifaatu ba pare ñu nar koo ajal no mun na koo def te waxu ko boo gisee ñu dindi loolu mooy nisër xam nga nisër mooy nga farataal dara ci sa bopp nekkuloon ci yow farata mais yaa ko farataal aj ku amul mais du farata ci moom mais kooku amul ba pare nag nisër ne damay aj mais léegi amul te farata la ci moom kon côté boobu la waxee mais waxuñu ne foog mu ne nañ ko ko defal wala déedéet même buñ ko bu ko waxuloon manees na ko ci ruutu incha <coughs> नाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला شرح طب واو waaw xam nga sarax na moom dafa yaatu parce que léegi nag damay saraxe yow nga togg rek masalan ne famille bi est ce que sarax nga ci jublu bu fekkee ne nag waaw ah waaw jeex na soxla na ko parce que sarax moom fu ko tudd rek am na ku ko moom ki ko moom mooy kan mooy miskin faqir su ñu tudd sarax rek am ku ko moom bu fekkee famille boo daa nekk à l'aise moom mu toog rek dem jëndi ay misuweem moom njabootam mu ne dañ koy la parce que sarax la ah du ñu ne baaxut de waaye mu jëmale woon ko miskin yi nag mooy maanaa sarax naam sarax daal buñ ko déggee nañ ko defal miskin yi naam جزاكم الله خيرا